alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah xam nga dawlu moo gën a oomal xam nga kii demut fenn lu muy doyatu soxlawul dara kon saaba yi loolu la bu ñaax ñu yaw ñu oomal lañ du ñu dañoo bari le waaye na zaat ngir sell wante ci amam fuqaraun way ñàkk lañ way aajo lañ jëmee ci yàlla ulama boromi xam-xam lañ ay matun ay élimaan eh, lañ umara ay buur lañ ci lañ leen jox zaydo dëgg nañ fi dunaa ci àddina fa maa urifa xameesut ci saaba yi almaylu jeng ilayaa ci àddina minhum wala raxba du caagan ko mu àddina arxasu a saaba yii ñun ñëpp de boo leen seetee tey da nga naan dugg nañu fi waxaa ci mbëmbëram xare dimbale yonente bi arxasu alag nañ fi loxa nufuusa mulukin bakkani ay buur xaarabuha xeex nañ ak ñoom aslaabuha rékkiit ya ixlaa aju cher la bu yoo xam ne eh, boo leen rayante la ngay rékki ñu ko rek lu cher la saaba yi alag nañ ñu ñëpp pour bëgg ci kullum képp ci saaba yi zojtihaaj ñu borom ak farlu la fi axkaam yi sawaabin borom njub la wa kulluhum ñëpp ak i faa ay nawle lañ radiyallahu yan yàlla gërëm am ci ñoom wa radu anhu te ñu gërëm yàlla nga ne ñoom am na ci ñu dëng ak ñi def njumte bu seen déedéet fa ana yaxtu ana fan lay jéggee xattaawun aw ñaawteef ilayhim ci ñaanda yonent bi jaa dikk na qawmun aw nit min baadi qawmin gannaaw aw nit bi xaqin ci dëgg ñu dem bu ñeneen ñu ñëwee indi dëgg ñoom ñëpp jaawoo dikk nañ alal manhaj al xanif ci njéer mu jub mi le xam nga ni Isa ak Moussa ñi leen topp amuñ loolu ñeelu Moussa ñeelu Moussa wala li Isa ñeelu Isa xawaari yuuna way weex yi leen di dimbale tolloowuñu ak saaba yenent yi fii fadlihim ci seen ngëneel wala muqaaba du tax ñu nekk tamit xaaral saaba yu mag yi ñu tudd leen kenn kenn bi abi bakrin maa ngi jottali ko ci abubakarin sadiq lu tax allazi mooy ki nga xam ne sax wër na bi naa si ñeen nit ñi bii ci moom iqtidaawum roy fi xayaatika sa dund bi ngay dund yow rek yaa julli ci ginnaaw Babacar ak mbooloo mi maa ngi jottali ko ci kooku wal muhaddi mooy kii dalal nit ñi yow ma saqifati bés bi yent bi génne àddina ñu taxaw ca saqafati binti saida bi aliin kii dal di lu kii dal di euh, lafañ kii gàddu jaasim omar ña ko wax ne yent bi dana ma def nangam nangam keroog babacar yaa dalal la dem yaa ñëw dal ne omar ala rislika toogal mu toog nga ne aliin jógal mu jóg nga ne ko doon jaamu muhammad muhammad deena ko doon jaamu yàlla nag yàlla moom bu day dund te du dee ñëpp dal di dal wal muhaddi yaay ki dalal nit ñi yow ma saqifata la ma arjafa ba tiitee naa su nit ñi annahu nag annahu Babacar addadaaha moo dalal nit ñi an qasa Babacar xeeti mu ñu diini baadama kaana gannaaw bu nekkee li diini ala kulli kurbatin bépp jàqare ishfaawun ak sappu gannaaw bu mu ay jàqare yow yaa ko xettali Babacar ku tabe la ku bëri woon alal la waaye anfaqa dundale na almaala alal fi rudaaka sa ngërëmu yonent bi wala man musu cee ànd ak ñaxe def naa ko bu doon donte ko nag man day nangam ak naan déedéet waata joxe ne jàmman lu bari wala ay daate musula musula néewal musula tere lu nga am da koy joxe gannaaw bu waa bi xafsin maa ngi giñ ci jottaliku ci bàyyi xafsatu muy eh, Omar ibnul Xattaab àll ki nga xam ne azhar allahu feeñal na yàlla bii ci ñu ak diini farawaa jajju ak ruqabaa ñi nga xam ne ñooy noon yi nekkoon di subli yëpp Omar ibn al-Khattab wala ji ma nga xam ne taqrubu day jege ala baa'idu mu sori fillahi ku sori woon te gëm yàlla Omar jegel la ku jege woon te gëmu ñu sori la ilayhi wa tabudu muy sori qurabaa ña ko jege te gëmu yàlla Omar ibn al-Khattab laa bëgg wax man mooy waa joo xam ne qawlu waxam al faslu mooy teqale dëgg ak fen waman mooy koo xam ne xukk ma atteem ba sayu mun bu jub ak sawaay bu daal di leer bu daal di jub gis nga Omar mbedd mi ñu sóobu seytaan yi génn ko farra daw na ñu ci Omar seytaan iskaana bu mu nekkee faaruqan di teqale dëgg ak fen ak lakka sax bu jëlee nga ne yaa Omar ibnul Xattaab mu daal di giim fa li naari ñaan safara sax in ak banku min sinaawu ca leeram nga bu sina Omar gannaaw ga wa ibnu Affan maa ngi jottali ko ci Ousmane ibnu Affan zil ayaadi borom maye ku bëriwoon Allah allati ki nga xam ne taala yàgg na ilal Mustafa bi al isdaaw ak joxe li mu am joxel yonent bi rek keroog jaysul usrati juróom-ñaari jilam la joxe addiya ak li ñu sëf juróom-ñaari sëf waral ci juróom-ñaari jaam yépp jox na ko yent bi addiye pour waajalee ko xare bi keroog la yent bi ne wallahi ma dara Ousmane ma faala baata yom Ousmane dara mënatu ko lor gannaaw tey Omar Ousmane xafara gas na al biira biiru moonata biiru roomata kon ah, jaasa waajal na al jeysha muy xare bi mu waxoon ahda joxe na ah, al hadiyaat yu lamma an saddahu ba fegee ko laa daw noon ya ne ko ne ko yonent bi du wër Kaaba waaye wëral Ousmane lànk na mbir kon ma ngi mel nii kon ma ngi mel nii Omar Ousmane ibn Affan loolu la defoon ak ñoom yi ñu ci dul si ci loolu tuuti ngeen xam ana nan la Ousmane defoon ci loolu xalifa Ousmane bin Affan ba yonent bi ñëwee ba Hudaybiya ñu ne ko doo dugg mag mu ne Banu Umayya ñooy buuri mag kon xaaral ma yónnee Ousmane ma bokk ci xeet woowu mu nekk intermédiaire nekk sama ambassadeur mu wax Quraysh ne dama ñëw pour wër Kaaba gi waaye ñëw pour xeex Ousmane dem waxee ba sottal ñu ne ko yow daal fi nga dëkk su la neexee nga wër kaaba gi def lépp loo xam soxla nga ko waaye yonent bi moom tànkam du dugg fii bu sori na Ousmane ko am kóolare waa baa mu bañ ñu kon soxlawuma bu yonent bi di wër kaaba gi man Ousmane soxlawuma an yattafi mu wër bil bayti ci néeg ba éege ngir la yadulu jegewut nañu ci ñoom ila nabi finaaw di wër eh, kaaba yàlla fay na ko an na bi bayati ridwaan keroog bañ ne rey nañ Ousmane yonent bi toog ca Hudaybiya mais sama loxo ngi loxol Ousmane a ngi jaayanti nag man moo tax na ko bi bayati ridwaan keroog ñun la ko def day wax ni yadun loxo la bay daaw du weex ni la bay ci yonent bi lii adabun teggin la indahu fa Ousmane tadaafa tadaa tadaafat fulalewu na al aam al al alaam al al amalu mébét ya bi tarki ci bàyyi loolu xabaza baax na lu dabaa lu am teggin bay na ko waali yëm maa ngi jottaliku ci imam Ali ibn Abi Talib sindu nabi moom toxu yonent bi la mooy koo xam ne seen ñaari baay ñoo bokk mooy seen ñaari baay bokk ndey ak baay loolu sindu xam naa bu doon ci tubaab bi la euh, cousin lañ koy tuddee waaye wolof nag tex la koy tuddee ab tex texu yonent bi la man mooy koo xam ne diinu fuaad yi dini sama xol man boo sori wi daaduhu soppaaliwu la walwalaawu ak méngale ko am mbëggeel loolu moo tax ñu ne Cheikhul Marsi ak Busayri ñu bari na ay chii lañ ndax jëng gi jëng ci alul bayt tu ne saxaaba yi taggaleen bu baax waaye mënu nekk chia ndax jëng ni mu tëggee Utmaan ni mu tëggee ñi ci des waaye nag wala ak mbëggeel gi mu am ci ali ci nag fokk am ko gën a bëgg wa wazir ammihi moom mooy jaraafam mooy doomu bàyyi taxam fil maali ci kawe bu fekkoon daf lay tagg ci kawe moom moo bokk bàyyi waaye ci liggéeyam jaraafam la xam loolu min al ahli ci ñoñ tasaadu lay texee al wuzaraawu ay jaraaf dafay jàngale la yàlla joxee ak pal seetal ñi la gën a jege nga jox leen ca ñu ñu jàppale la ndax texe ga ak baax ak liggéey boo minal ahli nga koy am waaye boo ko mingalee ay jàmbur bu lay war doo ko yëg moo tax mu nii wa minal ahli tasaudu alwuzara nga koy jox sa ahlu imaam Ali ibn Abi Talib ku amoon kashf la day wax lu ñëwagut moo tax keroog bu ñu dajee ak marhab ca xare ba xaybar marhab ne ko qad alima alxaybaru an almarhabu shaki silah batalun mujarrabu mu ne mayit qad alima alxaybaru an alxaydaru xaybar xam na ne man may gaynde gi man la sama yaay tudde woon gaynde man maa tëdde jaan ñëw ma jàpp ci bopp bi te yëgu ma ko téye ko ba mu dee sama yaay ñëw benkar ci loxo bi jaan ji dee mu ne haada xaydarun kii gaynde la ñun lañ tuddee woon Haydar te yow sax ko amoon kashfu laa bëgg wax yow sax gént nga bii gaynde di la fadd mu ne ah yow day wax nga dëgg mu ne waaw yàlla ma ko xamal man maay Haydar tey nga dee loolu moo tax bu siri ne lam yazid du dolleeku kashful xitaa bu ñeeku muraay gi yaqiinum ci bu wóor imaam Ali ne na buñ demee aljanna diw ak diw ku ne xam naa sa kër fu mu toll na nga ko gisee dara du ci soppeeku ban bu fi nekk mu ali ashamsu jant la maa alayhi nekkul ci kawam xitaawu muuraay mooy mosul jaar ci kéefér fukki at lañ ko jox yonent bi ñu yónni ko ci kanam mosul nekk yéefér kookooy moo tax ñu naan ko karamallahu wacca yàlla teral na kanam ndax mosul si jot xiram mosul jaar ci kéefér wa bi baaqi asxaabika maa ngi jottali ko ci ñeneen ñi des yonent bi ci sa saxaaba yi al mujhuri tartiib ñi nga xam ñoo euh, toftalee euh, ñoo feeñal toftale ga fii naa tafdiiloom seen ngëneel wal ak seen méngoo waaw ki ñu doon jàngal daf ko wéy ci wéy yi ndax bañ waxee ñeenti saxaaba yi dafa wéy juróom benn yi ñëw wa talaatun wa zubayrun saadu summa saidun amirun wabnu awfin dikru ashrihim kon juróom benn yi boo ko indee teg ñeenti fukk fukk la lañ digal ni ñëpp ñu ci aljanna ci bee toog ni diwa ngi bu mot fukk tudd na ñeenti ñu ñu xulafaawul rashidun xaaral ma indi juróom benn yi mooy talxatul xayr yi talxatul mu gën ni talxatul mu almurtadi mooy kuy gërëm rafiqan ñi ànd ndoor waahidan kenn la yow mu faral bis bu dee dalay rufaqaaw ànd ndoor ya xarab Uhud bañ jamee yonent bi mu daanu ñu bëri daw talaata ma dëpp ci kaw yonent bi fett bu ñëw mu aw ko ba loxoom bi dafa mujj seen ba mu wéree moo tax ne waaxid yow ma farati rufaqa waxa waari ka maa ngi génn ci sa doomi bàjjen ya Zubayr laa bëgg a wax karmike bàyyu sanga ba dee àlla ki nga xam ne bi asma asma bintu abi bakarin moo jur euh, euh, ibnu zubayr mi le moo jur zubayr ibnu al-awam mi le kon kooku laa bëgg a ngi euh, gën ci ñaari fadli ñaari siix yi ngëneel seen ay siix lañ muy saadu ibn ak Saïd mu tam ne Saadu ibnu Abi Waqaas ak Saïd Saïd mooy ki doon denc jigéenu Omar ibnu Xattaab ci qissa boo xam ne bu ngeen xam la ba loolu mooy lu jébbalu Omar Saïd ibnu Zeydin Saad ibnu Abi Waqaas une uddat bi ñu ne aswaaw yi sell ñi ci lañu bokk Ummu Awfin maa ngi jiiteeg Abdul Abdurrahman ibnu Awf man mooy ki nga xam ne nga war a doyadal mu soo bopp boppam bakkanam moo doyadal di yaay ji mu bas leen lu mu am da koy jox ku bëri alal la su ma ne ko jàngal commerce gannaaw gi ñu bëri leen lool lool lool lool ah, Abdurahman ibnu Awf ba ñu gàddaayee ba ñuy Madina yéen ci di bokkale jël kenn lan saa ni kii sa doomu ndey ki loxoon ni eh, eh, Abdurahman ibnu Awf mooy sa doomu ndey kooku ne ko sama ñaari jabar yi fas naa kenn jël ko sama alal nañ ko xaaj ci digg bi jël ko sama tool yi ñu xaaj ko nga jël benn bi mu ne baal naa la tool bi baal la alal baal la jabar ji lebal ma tuuti xaalis te war ñu marché ba ñooñu la def gannaaw ga mu bokk ci borom alal yi ñëpp ay tudd ñu di ko jox yonent bi ak di ko jox diine ji bas yi ci joxe ya mudd Israel am koom ginnaaw bi wal mukanna maa ngi ñëw ci ki ñu dàkkantale Abu Ubaydata Amir ibnul Jarraax nga nga leen di wax ne mooy aminu hadihi l ummati mooy ci gën a wóor ci xeet wi Abu Ubaydata Amir ibnul Jarraax ah iz yuzi ba ñuy askani al amaanatu kóolere al umana kóolere yi la jëm ci moom mooy aminu umm waaye gannaaw gi nag ñu jeexale fukk yi. du tere maa ngi jottaliku bi am nañ ko sa ñaari bantaxiya Abbas ak Hamzatu ak yéen falakal maddi ñoo leeral nguurub teraanga ja wa kullum képp ataaw min ko itaawun ay may yëmuma ca wa bi ummi sibtayni maa ngi jottaliku ci yaayu seex ya yaayu sët ya xam nga sibtu ci arab mu di ab sët mag ñu ne dañ koy firi ay seex rek ñu naa sëriñ sëriñ saa déedéet ñaari sët sët tumadub sët zawji ali jin mooy jabaru imam ali Fatima lay wax wa baniina ak doomam ya wa man xawatu ak ña làqam leen ci baaw ak abaawu mbàjjam ñu tey dafa toglu ali toglu fatimata xasan xuseynu abbas ibnu abbas jël mbàjje bi wërale leen ne li kulli baytin nabiyin ahlu bayti wa haula ahlu bayti ku nekk am nga ahlu bayti man ñii ñooy sama njaboot ñooñu moo tax mu ne man xawatul abba gannaaw gi nag wa bi azwaajika maa ngi jot lépp ci soxna ya àlla àllawaati ñi nga xam ne te charaf na tedd nañ bi am saanahum ne ñoŋal la ñu ko binaawu xaraf li nekk sa soxna loolu moo la ñoŋal ba ñu tedd ah bu sëriñ yàlla al amaan al amaan maa ngi ñaan kóolare ëllëg inna fuaadi sama xol ba doy min binóobin ci bàkkaar ataytu bu ne yoo xam ne def naa leen ci àddina ah.